ñu ngi am période de chaleur d'habitude da nga daan gis bu tàngaay jotee courant bi danañ coupé lu bari euh, daanaka euh, gisatuñu mu coupé wala bu coupé sax day day day gaaw a ñëwaat euh, amélioration boobu également tamit ban jàngat nga ci am. waaw tam dañ koy rafetlu wax dëgg fa yàlla mais nag bon lenn rek laa bëggoon aussi tam. waa ngir président bi mu gën ci bàyyi xel. Mm-hmm. ndax aussi. courant dañ koy utiliser pour liggéey aussi. absolument te bu seeree rek xam nga dafa am nu muy. muy bi waaw. waaw mm-hmm. aussi tam xam nga rek bon Sénégal ba léegi. Mm-hmm. Euh, dese na nekk dëkk bu nga xamante ne dafa bëri ay riche. certes y a une classe moyenne qui de plus en plus quand même bon se développe. Mm-hmm. comme un peu partout ailleurs a Afrique. loolu tam bon dañ koy dañ ci sant yàlla rek ko mais ba léegi rek xam nga loxo yëpp euh, euh, dajuñu ginnaaw daal. absolument moo tax tam dèjà ñun lu ñoom bëgg daal mooy. ci at yi di ñëw daal ñu fexe ba trouver système bu nga xamante ne vraiment dinañu utiliser peut-être euh, je sais pas euh, un peu carburant pour produit pétrole mais aussi énergie renouvelable yi daal mhm. ñu gën ko dooleel ba nga xamante ne mix énergétique bu ñuy bi ñu faral di wax noonu mu nekk une réalité su ko defee coût courant mun a wàcc daal mhm. ndax courant moment bi ci àdduna waratu mën a nekk luxe daal mhm. donc fa laay waxee quoi mais sinon euh, la, la, je veux service continu de fourniture euh, de, de l'électricité. Mhm. wax dëgg fa yàlla. nit ñi sax fàtte nañ ne rek courant dafa doon ko fi Sénégal. waaw <laughs> waaw <laughs> fàtte nañ ko. pour terminer euh, dañuy wax si euh, les enseignants il avait promis 5000 enseignants yu ñuy recruter recruter recrutement bi daanaka seen am na mais bare na coow ban jàngat nga ci am. non écoute coow moom. Mhm. Sénégal moom dëkk coow la. Mhm. yow mais xam yow mosoo fekkee fu làmb di amee fi Sénégal. dëgg ñëpp nekk mbër ñëpp nekk entraîneur kii entraîneur làmb. comme au football. comme football yi dem. Mhm. ba ci basket yi dem ba ci politique. événement politique bu ñëwee ñëpp ils deviennent des experts en sciences politiques et cetera. Mhm. donc bu dee coow rek. Mhm. loolu moom yaa sa tur Sénégal moo nekk di ko caaw. mais du tee du tee mën nañu ci wax dara. maanaam daal dañuy fexe daal ba ñu ñuy recruter. mun ñu nekk aussi tam ñi nga xamante ne am nañu profil bi ndax jàngale xam-xam. du ay fond dëkk yi ñu ngi rawante ci xam-xam dëkk yi ci ay yaatu dënn wala ci ay xaw ma naka laa ko mën a expliquer mun a xeex ak non du loolu parce que loolu mën mën xeex boo amul bopp mhm. ça ne sert kon enseignement éducation nekkul lu ñuy fooye daal mhm. moo tax pour man tam recrutement bi war ñu mën a fexe ba ñu ñuy recruter ñu am aussi bien taxawaay bi au plan intellectuel mhm. mais aussi tam taxawaay bi ci jikko absolument ah oui oui oui oui absolument taxawaay si jikko ndax adduna daal fa tëri daal te jamono bii lu ne dañ koy gis lu ne dañ koy dégg alors que moment bii nii ñu ngi seetu éducation yar daal mu ngi gën mu ngi gën a dem ci suuf daal ça veut dire moment bii nii tey lañu gën a soxla ay enseignant éducateur que démb absolument waxatuma rek enseigné mhm. maanaam jàngale liir jàngale bind non mais l'éducation mais aussi tam éduquer nit comme ni ñu koy waxee ci latin exducere mooy maanaam savoir sa conduire au dehors maanaam boo génnee sa kër nga mun a am nga xam nooy conduire sa bopp daal nooy comment tu te comportes daal donc moo tax. salaamaaleykum monsieur yaa ngi si Eleven News TV donc euh, man nga présenter wu noo tudd. Euh, maa ngi tudd Alphonse Mendy. Alphonse maa ngi la fekk fii si Grand Yoff maa ngi jégalu si dérangement bi euh, lan nga ñu mën a wax si li nga xam moom mooy BRT bi ci sa ñu mu commencé jël forme c'est vrai que Dakar xat na mais ban ban jàngat nga si am. non du moo wax ne dakaar xam na même tey jii nii nit ki soo nekkee sa kër nga nekk di kër mais bagage yi da nga génne génnee teg teg ci cour bi mais loolu defoo ko parce que da nga am envie xatal sa kër da ko def rek parce que tout simplement euh, da nga nekk ci liggéey. Mhm. liggéey boobu rek moo waral pour un temps nga génne say bagage donc bu ñu nee dëkk bi xat euh, du ma jàpp ne du ma ko gisee noonu. damay jàpp rek ne dañu nekk ci liggéey te bu ñu nekkee ci liggéey forcément dina am ay euh, désagrément mais nag lu muy xat-xat mais tu vois que télé bi policiers yi ils mettent en place un système mu nga xamante ne xat-xat bi doo ko yëg doo ko yëg noonu muy benn ñaar BRT bañ ko soxla ndax nag ñu tam dañu nekk euh, fii Sénégal nekk fii ci dakaar mais dañuy voyager dañuy dem ci yeneen dëkk yi dañuy gis lu fa am tey boo demee Europe di nga gis ay train di nga gis ay TR di gis ay ay tramway ay lu ne mais loolu yëpp bokk na ci li facilité euh, déplacement ci dëkk yooyu bokk na ci li facilité mobilité mais ñun tam mais on a besoin de loolu. Mhm. lu tax ba lu baax lu ñeneen ñi am lu tax ñun war ñu ko mën a am. Mhm. kon BRT boobu noonu ñun du ñu def dara dara dara lu dul rek rafetlu ko yaa ngi dégg donc xat-xat yaak yooyu noonu léegi mu jeex ndax gis naa fii bu ñu doon tabax euh, kii bii. Euh, pont bi nekk ci VDN mais c'était un peu compliqué mais pont bu mu dee ba jeex nit sa fàtte nañ ne fii mosoon am xat-xat ndax pont dafa rafet ba nga am képp ku fa romb mais la preuve sax da xool léegi képp kiy def clip fan ngay dem. ci pont yi. da ci suuf waaye nga dem ci ci uh-huh. naa la fi génneel ay bi nga bëri <laughs> clip nga am na ngay dem foofu ci suuf bi. absolument bàkkar ñi ba sa yi caay di xo di teppeeku. Mm-hmm. mais déjà nit yi fàtte nañu jamono bu ñu doon defar euh, bu ñu doon defar pont bi. naka la ki yoon mais loolu du ci dara loolu du ci dara comme defar la rek xat-xat yooyu moom léegi ñu fàtte ko beete bu ñëwee ah mhm. je crois que dina am aussi tam lu muy lu ci xelu sénégalais yi parce que kaay ma wax la benn affaire sëñ bi gis nga tey jii nii soo fi romboon benn kër mooy lu ñu faral di wax syndrome vitre kase ñu toj ñu toj ñu toj vitre da ngay mhm. xool kër googu noon nit ñi commencé di tuur mbalit foofu absolument parce que dañuy jàpp ne foofu amul njëriñ tey Dakar en tout cas su ñu demee ba façon infrastructure yi infrastructure yi commencé di bëri fii da gis sax ci xelu nit yi comme ci mbirum ci mbirum ci mbirum salteg yooyu noonu. Mhm. nit yi dañuy commencé. di seetal yenn yi absolument donc au delà sax transport bi sax. mais mhm. dina dina am ay effets yu nga xamante ne mooy loolu ñuy wax externalité quoi noonu ñu koy wooyee. dina am ay externalité yi positive yi nga xamante ne. Mhm. dina toucher conscience yi ba nga xam ne nit yi dañuy entre guillemets gën a civilisé. yaa ngi dégg. Uh-huh. donc bu dee ci mbirum DRT bi daal ci gàttal daal loolu laa ci mën a wax. ñu ngi asalaamaaleykum mbokki internet 11 news ñu ngi fii si Grand Yoff maa ngi fekk nag uh, ñaari uh, gaa wala ñaari waay yu toog ah, ñu ngi toog uh, ma ma nuyu leen salaamaaleykum. maaleykum salaam. mën nga ma wax sa tur ak sa sant. man maa ngi tudd Ndiaga Mbengue. Ndiaga. waaw maa ngi la fekk fii di def benn reportage sa point de vue si li nga xam mooy les réalisations du président Macky Sall. Mhm. actuellement ni gis nañu BRT bi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi jóg euh, ñu bare gëmuñu ko daanaka dañuy wax sa gas nañu dëkk bi yëpp euh, gisaguñu utilité bi mais gis nañu mi ngi commencé jóg. Euh, bare na également tamit lu mel na courant bi na mu meloon wax dëgg amélioré wu na bu baax a baax a baax a baax lan nga ñu mën a wax si si si si en grosso modo réalisation président Macky Sall yi. merci sëñ bi moi je pense que li nga ma laaj damay am mbégte tontu la ci. parce que dama di Sénégal dëkk ci dëkk bi. Mhm. te wax dëgg yàlla euh, su ma gisee li kuy liggéey rawatina président Macky Sall di président de tous les Sénégalais soo ma laaj ci li mu def ci réew mi dama la ko damay sawar pour wax la ko. je pense que comme ni fi nga jëkkee noonu rek BRT bi je pense que lu baax la parce que Dakar toll na fi nga xam ne il faut ñu soppi doxalin changer comportement yi. parce que dëkk bi mënul toog nit ñi dugg ci ay njaaganjaay dugg ci ay affaire accident yi di bëri ah, nit ñi di tardé seen liggéey loolu jaatuwul dëkk bi xat na léegi ngay fa nga wut ay yoon wut ay pexe je pense que vision bi foofu vraiment c' est à saluer est une bonne vision et le de vraiment doter du Sénégal un système de transport rapide extra rapide loolu rafet lu baax la man dama koy saluer c' est très positif beneen bi aussi même le TER yaa ngi wax BRT mais le TER TER Mhm. parce que nit ñi bu ñu yàkkamti parce que xam ne terre bu ñu sottee baax. Mhm. parce que dana permettre ku war a dem tukki jël oto di consommer essence wala gasoil da nga fay gaare jël sa terre dem liggéey wàccaat di sa oto ñu ñibbi. Mhm. je parce que loolu lu baax la man. maa ngi gis euh, euh, hier rek euh, pas plus tard RTS nga gis ni wa ñi yore terre bi di signer partenariat ak waa Dakar Dem Dikk pour que bu ñuy yegsee si gaar yi ñoom tam ñu mën a continuer. li nga xam moom mooy acheminer euh, les passagers seen lieu de travail loolu noo ko jàngatee. waaw kooku c'est une excellente parce que loolu on attend que ça parce que xam nga boo jiite da ngay xe xereñ xalaat parce que connexion boobu dafa am solo. Mm-hmm. parce que euh, euh, usage kii rek ñoo ci am ñoo ci am ñoo koy ñoo ko jëriñoo. ñoo si bénéficié ñoo ci bénéficié et loolu am solo la moi je pense que daal yàlla ñu yàlla may fan gudd bañ fekkee ak jàmm. Mm-hmm. et li ma gën a neex aussi. mais c'est par rapport à la prise en charge ah des démunis des couches vulnérables et loolu mi ngi ci bon lance peut-être appel bi may lancer rek mooy que peut-être que le fait que on est resté très, très longtemps sans pour autant euh, verser ce que l'État devrait peut-être avoir l'habitude de faire par rapport aux bénéficiaires de bourse de sécurité familiale seen bourse yi na leen ko jox allocation bi doon jox vingt cinq mille francs par mois yi par trois mois par trois mois je pense que loolu la ñuy gestu leen euh, jox leen ko su mënee nekk avant màggal baax na su mënee après màggal baax na parce que nit ñi soxla nañ ko. parce que ay deux ans un an ngi nii jotuñu seen bourse de sécurité familiale. Mhm. loolu moom peut-être sur le plan social moo des. mais sinon à l'échelle nationale. je pense que mi liggéey ci wér gu ci santé. kenn def ko. Mhm. la gestion de la Covid est vraiment perspicace et très efficace. mais non seulement aussi le fait de doter les le les les les grandes Mhm. des, des hôpitaux de niveau trois ça c'est déjà quelque chose. Mhm. Je prends l'exemple de Kafrine, de Touba, de Kédougou. Je pense que mun na mon sur le président quand même, comme sénégal yi def, il est encouragé. Vraiment, je pense que son bilan vraiment, vous pouvez nekk di ko lim bu suba. Du jeex. maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax de sant la gërëm. donc moo tax yemul war ñu mun a yem pour man ci diplôme rek di am na je sais pas bac wala non non non war ñu mën a xool mais dañu war a mun a xool aussi tam est-ce que ñii ils sont aptes à transmettre des valeurs justement c'est ça la problématique actuelle nii naka la ñu war a mun a def moment bi ci éducation mu bañ a nekk instruction rek jàngale lire jàngale euh, je sais pas bind mais ñu jot les valeurs def ko au cœur de notre système scolaire ba nga xamante ne finalement day nekk ministère de l'éducation ministère de l'éducation door a am am maanaam instruction oui mm-hmm. mais aussi savoir comment faire pour que la personne ait des valeurs, comment faire pour que la personne puisse être un bon citoyen, comment faire pour que la personne puisse vivre en société d'une façon, d'une façon, d'une façon appréciable, positivement. su ko defee ministère de l'éducation mun a am enfin son sens plein et entier. merci jërëjëf monsieur merci.